nuyu bu baax te di leen siyaara ci bis bu tedd bi ci barab bu tedd bi di leen ndokkeel di sant yàlla bu baax bi nga xam ne moo nu fekkee la waat waxtu wi nu dajawaat ci barab bu tedd bi ni ñu ko baaxoo defe muy tey di bis boo xam ne dañ koy def di fi waxtaan ngir waajale ko bés ba nga xam ne mooy bis bi ñu màggale sunu maam yu tedd yooyu le sëriñ bu soobe ak rakkam ja sëriñ saabus bis boobu nag tey bu ñu koy waajale ci sëriñ bu soobe di ko waajale ci kër sëriñ Omar Bousso kon dafa mel ni du njuumte du hasard lu war a am te am rekk la muy bis boo xam ne bii ñu ngi ko jublu si te daa ko def muy incha allah mu war a nekk alxames ñaar fukki fan ñaar ci décembre niñ ko daa fañ ko daa defee ci mbusoo bi ci Mbàkke kon bis boobu la waajal loolu war a waxtaan wi tey jii moo war a bokki daje fii tey kon lii benn la ci bis ba rek tamxiit la ci nu daje fii nag ci kër sëriñ Omar Busu ci kanamu xalifaam bu tedd bi sëriñ Amdi Moustapha Busu mu ànd ak mboolem ay rakkam mboolem ay doomam mboolem ay sëtam ak i jarbaatam ak i taalibeem taxaw ci taxawin woo xam ne wi ah, rafet na lool yéeme na lool kawe na lool mu dox ci yéene eh, ginnaaw bi ñu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant seexuna ahmadul xadim radiallahu anhu di nag sant mboolem mbokk yi nga xam ne ñee teew tey ci jotaay bu màgg bii nii euh, di ci jiital mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi na bu ñu demee ba ci kàddu yi yi nga xam ne kilifa yi ñoo ko euh, ñoo ko koy ñoo koy jagoo danañu gën a ñëw ci ñoom bu baax a baax ginnaaw loolu nag jotaay bi ñu war koo amal war ci ànd ak suñu mbokk mi nga xam ne moo nekk suñu wet mooy suñu ñaari mbokk yi sax lañu wax muy sëriñ Abou Boussa Talha ak sëriñ Ibrahima Fall ñu war a ànd ak ñoom ci thème boo xam ne moom lañu tànn tey di thème boo xam ne itam ba am solo la ndax dafa ñëw ci waxtoom moom waxtu wu ne sax la war a ñëw waaye bii da cee rawati ndax jamono mel na ne Euh, xaw nañ ko sàggane lool te muy loo xam ne bu sànkoo rek mën nañu wax ne euh, lépp sànku loole mooy lan moo liñ tuddee masuliyatu riaya ala daw il qurani wa sunna lan mooy responsabilité lan mooy responsabilité ci fan ci alquran waaye lan mooy responsabilité ci sunna si yonent bi alayhi wa sallam ana lan mooy responsabilité ci doomu aadama yi nga xam ne suñu borom moo leen sàkk te leen sàkkee itam responsabilité boobu képp moo taxoon mu sàkk leen ndax moo wax ci alquran ne inna aradna al amaanata ala samawati wal ard fa abayna an yaxmilnaha wa asfaqna minha wa amalaha al insaanu innahu kaana zaluman jahula lii nga xam ne moom mooy responsabilité man sama borom subhaanahu wa taala bi ma ko gaaralee li nga xam ne moom mooy nekk ci asamaan ak suuf ak euh, montagne yi dafa mel ne ñoom ñëpp dañoo joxe ngant ki ko yanu kenn rek la muy ko dëgër fit mooy doomu aadama ndax doomu aadama mel na ne ñàkk xam moo tax mu yenu responsabilité boobu noonu waaye ku yàlla dogal itam responsabilité boobu nga def la nga ca def yow su boobaa sa jaan wàcc na te responsabilité boobu itam nag lu yaatoo yaatu la mën nañ koo gën a yaatal ci biir waxtaan wi buñ ci duggee kon moo tax dama daal di jox rek sëriñ Abou Boussa mu daal di nuyoo su nappee daal di ñëwal ñu ci lan mooy responsabilité buñ ko waxee mooy mu xamal ñu ko su nappee itam mu teg ca lam cay teg ñu doo ko jox itam sëriñ Ibrahima moom itam mu indi ci li nga xam ne moom mooy contribution ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu sell bu tedd boobu nga xam ne mooy nuyoo lislaam di nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci ëtt bi nekk ci jataay bi di jiital ci nuyoo boobu xalifa kër gi di sëriñ Hamdi Moustapha di ko ñaanal sunu borom sàmm ko ba yéeneem ci njaboot gi ak ci yoon bi mu def ko ni mu ko bëggee di am mbégte lool ci jataay bu am solo bi nga xam ne ak lañ na as saqaafiya bi nga xam ne dafa topp mu assasa bi bi lëkkale seti Serigne Bousso bi ak Serigne Sarr amal jataay bi mu bokk ci jataay yi nga xam ne dañu koy waajale bis bu tedd boobu nga xam ne mooy ñëw ñu ci fàttali ko sunu ñaari ndox ne mbaax diine ak ngor ci ñoom la yam muy Serigne am na solo lool jotaay yu mel nii ñu di ci fàttalante xëy na dañ ci junj dara rek ubbi ci bu ko defee mbokk yi ñëw ci ginnaaw dinañ ci gën a yaatal ndax xam ngeen ne thème bi dafa nekkoon nat ba xam ne ay mbokk ñoo ko waroon a seet yàlla dogal ñun ñëpp ñu am ay ngànt yoo xam ne yu mat ngànt la ñu mujj ma koo wékkaat ngir ma fas yéene sama yéene ci liñ tënkoon ñoom bu ko defee mbokk yi bu ñëwee mën ko yeggale sëriñ Abdou Lahad wax na thème bi thème la bu am solo boo xam ne mooy al masuliya la responsabilité responsabilité lu am solo la ci lislaam ndax doomu aadama ak ñëwam ci kaw suuf dafa làmboo ak responsabilité bi ko sunu borom gàll suñu blaat wax na ko ci aaya boobu mu ubbee inna arabna al amaana amaana bi maanal masuuliya fil aaya moom day firi masuuliya day firi mooy responsabilité bu rëy la gaaral mboolem ñooñu mu tudd ñoom ñëpp ñu deltu ginnaaw ci jiima yanu masuuliya boobu xam ne diis na waaye doomu aadama gàddu masuuliya boobu moo tax mu ne innahu kaana zaluman jahuuda lislaam nag masuliya lu ci am solo la lu mu yittewoo la mooy responsabilité boo xamee responsabilité ba noppi it nga sàmm ko moo tax la war taxaw defe ni mu war a la cay ay jafe-jafe ak la cay lépp nga man a yenu lay ñëw ci ginnaaw bi moo xam lu baax la moo xam lu bon nga yenu na ciy jëloo mooy résultat ba nga mën ko gàddu loolu ci responsabilité la bokk responsabilité yooyu nag ci alquran bari na ay ay aay yu koy firndeel di ko tegtale waaye responsabilité boobu am na ay baat yoo xam ne yu nuróom yu nuróom moom la ci maana waaye benn mënu cee demit bari borom bi muy ak taklif ku wax masuuliya responsabilité wax taklif mënee suta teg mu nit ki te am responsabilité mukk te takliful ko ndax saa yu taklif amee rek boobu la responsabilité dal di taxaw moo tax suñu borom li mu santoo mboolem jullit nii yépp ginnaaw bu mu leen ko tegee ba noppi booba nag la masul la masuliya daal di taxaw ci jiima wàccoo ak ndigali suñu borom yooyu jiima wàccoo ak tere suñu borom yooyu mu la bàyyi moo tax ak taklif ak al masuliya ay baat lañ yoo xam ne benn mënta dem bàyyi borom bi ndax taklif boobu foo saa yu taklif amee masul ya day daal di taxaw ci bi waaye it da ngay a al ahliya maanaam a yenn responsabilité bi ndax loolu it sàpp la ci masuliya responsabilité ki ñu koy yan day fekk mu koo xam ne mën naa am man-manut mën a yenn responsabilité moo xam ci diggante ma boromam moo ci diggante ma nit ñi moo xam ci diggante ma ba ci ay njabootam ndax mooy tax nga man ko man-man bi dañu xaw a sori rek ñu lay togg loo mënut ak taklif bi maa laayu tax bu amee loolu masuliya mënu fa am responsabilité bi mu ko mën a gàddu masuliya boobu nag ñëw na ci alxuraan lu baree bari suñu borom tudd na baatul masuliya ci ay barab yu bari yoo xam ne lam ñuy teg am na ci ndigal yoo xam ne ñëpp la commencé am ci ndigal yoo xam ne dafa xaw a particulier bokk na ci inna samaa wal basara wal fuaada kullun ulaika kaana anhu masula baat bi daal di ñëw masul al masul mooy nit ki lépp loo xam ne mën nañu wax ne aaya boobu ci aaya yi gën a fës ci nit ki yëpp responsabilité ak li ñu ko gàll ni mu réyee ci la bokk mooy lépp lu muy dégg wala mu di ko gis wala mu di ko xalaat ci xolam ak lu mën a doon loolu responsable la bu ëllëgee dinañ ko ci laaj masulee bi da nga rendre compte sa borom mboolem li nga mës a dégg loolu loolu responsabilité bu réy rek beneen aaya sunu borom mi ngi wax sa tuktabu shahaadatuhum lu mu ca teg wa yasaluun wa yasaluun dañuy bind it ba yomal bu ñuy laaj liñ bindoon ci seede nit ñi ci seeni téere loolu lay wax ne sa tuktabu shahaadatuhum wa yusaluun looleen luñ seede ci li ngeen mas a def dinañ ko bind te bu ëllëgee dinañ leen ko laaj demee ci beneen aaya muy wax ne summa la tusalunna summa la tusalunna yawma izin anin naim summa la tusalunna bu ëllëgee it xéewal yi ma leen jox dinañ leen laaj xéewal yooyu fu ngeen ko def ndax def ngeen ko ci topp yàlla ndax sant ngeen yàlla ci xéewal boobu ñu leen defal ndax fàggoo ngeen ko ci yoon wu dagan wala ndax fàggoo wu leen ko ci yoon wu dagan yooyu ay laaj la yoo xam ne nee na summa la tusalunna yawma isin anin naim mooy responsable la kon nit ki ci lépp lu muy fàggu ci àdduna mu xam lu mu doon fan la jóge bu ko jëlee ba noppi fan la koy def niki noonu it alxuraan tudd na masuuliya ci barab yu wute yu bokkut ak ci waxin yooyu nga xam ne baat bi sax da ciy ñëw afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun ndax da ngeen a jàpp ne dama leen a bind ngir am fo déedéet doomu aadama binduñ ngir am dañ koo bind ngir mission bu ko indi ci kaw suuf muy responsabilité bu ñu ko gàdd ngir mu wàccoog responsabilité boobu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun li ñu sant doomu aadama mooy mu jaamu yàlla ci kaw suuf jaamu yàlla boobu nag moo tax yàlla bind nu bind nu ngir am fa kon responsabilité bi nit ki di yëg foofu mooy adduna ñëw fii ngir kon itam adduna waaye dafa ñëw ngir mission ngir fexe ba masuuliya bi ko sunu borom teg ci inna arabna al amaana mu jiima wàccoo ak moom a yaxsabu l insaanu an yutraka sudan doomu aadama ndax dañ koo bàyyi rek it laax ko noonu lu ko neex def ci àdduna mas masuul la responsable la boo xam ne lépp lu mu def ci àdduna dinañu ko noté dinañu ko bind war naa bàyyi xel masuulee boobu ba tey it waqifuhum innahum masuuloon na ngeen leen taxawal mooy bu suñu borom di nett li yomal xiyaam nit danañ ko mu war a dem dugg àjjana ay nit ñëw dab ko kar ko ne ko am na ay responsabilité yu doxoon suñu diggante te yow mii yaatee ñu taxaw ci responsabilité yooyu suñu borom ne taxawal leen innahum masuuloon ndax dañ leen di laaj àq yooyu nga xam ne ak responsabilité yi leen waroon ci ay nit te defuñ ko loolu moo tax yooyu yëpp day tegtale masuuliya lislaam yi ci ay principe am tënkul rek masuuliya masuuliya bi daf koo tënk ci jëmmi ki nga xam ne mooy defar mbir mi al masuul moom lañ mooy responsabilité bi bu nit ki defee lu baax wala mu def lu bon du engagé ñëpp moom lay engagé maanaam mooy masuul bi nga xam ne soo defee bàkkaar wala nga def jarima kirim yow lay engagé mais keneen du ca amu yoon loolu rek li ñu wax mooy yan bu mu yan yan bu diis masul bi mooy jullit bi ngir mu gàddu responsabilité loolu suñu borom wax na ko ci aayo yu bari tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum kenn ku nekk ak la ngay def yow la engagé yaa ko war a def wala tusaluun amma kaanu yaamaluun qul la tusaluun amma ajramna wala nusalu amma taamaluun yooyu yëpp li mu tekki mooy al masuul ci boppam mooy ki nga xam ne mooy gàddu responsabilité bi ci lépp loo xam ne def na ko ci diggante mu boromam baa mu def ko ci digganteem ki moromam te du ci yóbbaale kenn wala taziru waziratun wisra uxra loolu nag mooy gis yi nu mas alquran ci masuliya yonente bi alayhi salatu wasalaam dem na lu gën a sori loolu boo xam ne xadis boo demee ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa ci am ay taxawaay yu am solo yoo xam ne taxawe na ko ci adduna waaye indi ci ay xadis nga xam ne am na ci jaanib boo xam ne jaanib la bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ahadis yi nga xam ne yépp day wax ci wàllu responsabilité am ci ay jawaanib yoo xam ne dafa nekk jawaanib tatbiqiya boo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko taxawee ci pratique yi ci ak dundam loolu lépp feeñ na ci masuuliya ci sunna mën nañoo jël benn xadis boo xam ne moo gën a siiw ci xadis yi ñuy wax ci wàllu wàllu responsabilité mooy kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi mooy mooy kenn nekk ci yéen ab sàmm la kenn ku nekk ci ab sàmm ëllëgee dinañu ko laaj doon sàmm xadis bi dafa indi importance bi masuul am waaye yëmu ci dafa joxe sax ay misaal yoo xam ne kenn ku nekk am na la la tey xam wal amiru raain wa rajulu raain ala ahli baytihi wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi xadis bi daanaka tënk na mboolem loo xam ne mooy responsabilité ci ci am seede yi mu ci joxe ak domaine yi nga xam ne majaalaat yi nga xam ne mënees na caa fekk responsabilité wala muy ay anwaax yoo xam ne responsabilité am na ko yooyu yëpp da xadis bi faram fànk na ko bu baax a baax a baax responsabilité boobu nag dafa am ay xam am ay objectif yu ko tax a jóg am na ay anwaax mën nañoo tudde ne responsabilité mooy responsabilité bi dox ci diggante nit ki ak boroomam mu wàccoo lim ko digal ak lim ko tere am na responsabilité bi nga xam ne si diggante ak famille la al usra te bu ñu waxee usra bi day dugal commencé ko ci wayjur yi ba wàcc ba ci soxna yi ba ci doom yi lenn lu ci nekk am na ay responsabilité yu la war ci moom responsabilité ba ci bu génnee sa famille bi dafa war a génn dem ci société bi société bi tàmbalee ko ci say dëkkandoo wàcc ba ci société bi wàcc ba ci réew mi nga dëkk wàcc ba ci ki ngay dund yooyu yëpp ci jaar bu gaaw rek incha allahu taala dinañ jaar ci yooyu bi tudd léegi kon masuliya yooyu noonu la amee masuliya bi war diggante nit ki ak boroomam ñaar yëf la mooy jaanibul intiqaad ak jaanibul suluk jaanibul intiqaad mooy diggante nit ki li ko war diggante ak boroomam ci wàllu pas-pas nga xa ne mooy li war sa diggante sa borom ci wàllu pas ci wàllu tawxiid bi wéetal ko ak lam cay la yelloog moom la yelloog jëmmam bi loola nga taxaw ca taxawin bi am solo ba waxtu wu nekk li yell ci jëmmi sunu borom ji ci ay melo nga di ko ko saxalal lu yellut ci moom ci ay melo nga di ko ko dàqal yooyu ci jaani bi nga xam ne masuuliyat doomu aadama jullit bu nekk di diggante na borom mooy fexe ba wàccoog moom ci wàllu pas-pas ndax dara ëpp ko solo ci diine te diine it mën nañoo wax ne tàmbali lépp pas-pas lay jàngale ndax lépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nekk Makka def na fukki at ak ñett yoo xam ne musta jàngale nu ñu jullee musta jàngale nu ñuy wooree musta jàngale nu ñu nett asaka waaye dafay jàngale naka la ñuy yàlla mooy al usul usulu diin mooy yi nga xam ne mooy ay pas-pas yu nit ki war a gëm diggante ma boromam te loolu tàmbali ci mooy sa diggante sa borom wàcc ba ci yonent yi la nga war a fas ci ñoom wàcc ba ci dogal yi wàcc ba ci li nga xam ne moom mooy euh, malaaka ak téere yi suñu borom wàcce yépp mooy mbooleem usul yi nga xam ne dañu koy gëm ci wàllu tawxiid nga gëm ko ba noppi saxal ko loolu ci responsabilité yi war doomu aadama la ndax lu mën a tënk nit la bu ëllëgee saa yoo ci manqué le benn mën naa indi fitna sa digganteeg sa digganteeg sa borom loolu dama ciy bañ a dugg ci benn bu nekk ndax importance bi tawxiid am ñun ñëpp xam nañ ko ak solo si mu am ci lislaam loolu moom waxtaanu boppam la waaye ay buntu laay joxe rek ci responsabilité yi ci war diggante nit ki ak li nga xam ne moom mooy boroomam loolu muy ci wàllu pas-pas jaani bu suluk mooy li ko war nag ci digganteeg li ko yàlla sant ci xeeti ci xeeti luy jëmmal ne pas-pas boobu mu la njëkk a sant ba noppi nga nekk ci masuul lim la ci sant li ci koy firndeel mooy jaamu yàlla yim la sant mooy firndeel ndax pas-pas bi dëgg na ci yow wala dëggul ci yow mooy julli yi woor yeeg asaka yi ak li nga xam ne mooy aj màkk yooyu yëpp dafay dugg ci ji ak yi mboole boole muamalaat yi nga xam dañ koy jëfandikoo yooyu yëpp day dugg ci biir jaani bu suluk mooy kon nit ki war nay fexe ba li ko sunu borom gàll muy ay ahkaam taklife yoo xam ne sunu borom daf la ko gàll muy ci julli yi muy ci woor yi nga fexe ba wàccoo ak loolu mooy importance bi julli am xam nañ ko ni ki noonu koor ni ki noonu azaka ni ki noonu aj màkka yenn yu ci nekk ci wàllu jaani bu suluk yooyu mu taxaw ci taxawin wu rafet ndax loolu mooy dëggan mooy firndeen liy wane ne mooy jaani bu ixtiqaat bi dëggu na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na ngëm yàlla du nii rek laysa al imaanu bi tamanni walakin shay'un waqara fi l qalbi wa saddaqahu al amal luy sax ci xol la mais ay jëf a koy dëggal jëf yooyu nag mooy responsabilité yéen la war togg la ko nga war ko jëmbal war ko fesal moo tax ñaar yooyu rek mën nañu ubbi mën nañu junj ci bunt yooyu muy responsabilité bi war diggante nit ki ak boroomam mooy jaanibul intiqaat li ngay fas sa diggante ak sa boroom ak jaani bu suluk li ngay fas li nga xam ne moom ngay jëf ci ay xeeti jëf la jëf yoo xam ne sant na la ko nga war koo taxawee loolu jullit bu nekk daf cee war a am responsabilité yëg ne responsabilité bu rëy a rëy la bu màgg-màgg la bu am solo la boo xam ne mën naa tardé nit fu bare bare bare bare moo tax war nga cee taxaw moom it ci defe ko ni nga xam noonu ko bëggee bu dee ci deuxième point bu mu ñu tuddoon léegi mooy masuulee bi nga xam dafa aju ci wàllu famille famille bu ñu ko waxee dafa am solo al usra dafa am solo lool ci ci ci ab société am solo lool nag ci diine bari na ay actes yu am ci lislaam yoo xam ne daf koy jagleel ay famille te solo soosu mu ko koy jox mooy solo si mu am nga xam ne ab société su jagee famille yi ñoo boole ab société société boobu jag su su su famille yi yàqoo société boobu daanaka day ndërmelu munta am jikko yu baax munta am jikko yu rafet moo tax lislaam fonk lool famille bi nga xam ne dafa composé ci ay wayjur ci ay soxna wala ay borom kër composé wu ci ay doom l'islam jox na ko gëdduwaay gëdd bu am solo boo xam ne am na ay acte yu bari yu ci ak yoo xam ne jërul ñu ciy xuus te loolu day wane solo suñu am ci ci l'islam moom famille su ko defee nag famille boobu am na ca taxawaay yu am solo yoo xam ne am na ko ci diggante nit ki ak li nga xam ne moom mooy moom moom moom mooy famille ndax famille boobu ci yar nit ca lay jóge mooy ñoo mën a saxalal nit yar ko ba defar ko ba jëmmam defaru xelam defaru man-manam defaru mu yëg li ko war digganteem ak boroomam ba noppi yëg li ko war aussi ci digganteem ak li nga xam ne moom mooy société bi su loolu amul nag dara du te famille boobu saa yu ñu yërut loolu luñ ko yara rek loolu lay màggale la yonent bi salaatu salaam waxoon ne loolu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne kullu mawludin yuladu ala alfitra mooy la waykat boo xam ne wa yanshau naashiul fityaani minna ala ma kaana awadahu abuhu ñàkk koo defit famille boobu ñàkk yar yu ñuy yar famille ci seen biir te loolu dinañ ci ñëw mooy mooy jariñu bi gën a rëy mën nañu wax ne crime la bu mag boo xam ne lislaam euh, daf ci daf ci maytu ni ko loolu bari bari li waykat bi naan ihmaalu tarbiyatil banina jarimatun aadat ala al abaai bin nakbaati masuliya boobu nag mooy li ci jiitu mooy ñaari wayjur ñaari wayjur ñaari wayjur ku ne xam ne ne sunu borom moo sant ñu topp leen wa wasayna al insaana bi waalidayhi xusna suñu borom moo santaane ni mu santaane julli santaane ko asaka ak woor moo santaane ñu rafetal jëm ci suñu ñaari wayjur ñàkk koo defit mu tagg ci ay mbugal yoo xam ne ak ay daan yoo xam ne am na ci nit ki mu di ko bàyyi xel kon moom moo nga xam ne moo santaane ñu rafetal jëm ci moom rafetal googu it responsabilité bu war bépp bépp nit la ci digganteem ak ay wajuram te loolu rek mën naa tënk ci topp leen ñaari wajur suñu moom li mu di ko wax na leen topp te bu leen topp ci ak mooy waaye na nga leen di dundal saa yoo ko mënee ki noonu na nga leen di liggéeyal di service al say waajur it ci responsabilité yo war diggante nit ki ak waajuram ci la bokk mooy nga di ko fexe ba ay man-manam ay liggéeyam loo gis mu jàpp ca nga ñëw jàppale ko ca loo gis mu nete nga ñëw nekk ca moom ak di def lu nekk ngir jiima am ngërëmam donte sax ñoom ñaar ay ay nekkuñ ay jullit sax da islaam dalay lay sant nga rafetal jëme ci ñoom ñaar waaye buñ ñaawal mukk jëme ci ñoom ñaar bañ bokkoon na ci it mooy nga bañ a yëkkati seen kàddu mooy wala taqul lahumaa uffin bul yëkkati seen kàddu mukk ci kaw seen kàddu bul biral kàddu ci seen kaw bul def dara loo xam ne daf leen di lor wala ngay def dara loo xam ne jëfoo ci seen i ndigal yooyu way doom ju ne responsable la ci mu sàmmanteeg yooyu ci digganteem ak i waajuram mënut a ñàkk mu sàmmanteeg moom ci digganteem ak i waajuram ndax mënu cee ñàkk loolu mën nañ koo tënk rek ci responsable bi nga xam ne responsabilité bi nga xam ne moo war Euh, nit ki ci digganteem ak juram ni ki noonu bu dee ci digganteem ak li nga xam ne moom mooy doomam moom it am na ci ay responsabilités yoo xam ne war na sa diggante nit ki ak doomam mooy bi ci njëkk mooy nga yar leen yar bu rafet ginnaaw wax nañu jur bi li ci gone gi wala doom ji li war digganteem ak waajuram waajur yi moom it li ko war ci doomam mooy taxaw temm ci yar leen taxaw temm ci fi ñii ma fexe mbaax ak jaamu yàlla sax ci ñoom ndax yonent bi sallallahu alayhi ne woon na kullu mawludin yuladu ala alfitra ku ñëw ci adduna mbaax nga indaale noo mel ñi la séq ñoo la ko mel sawaun yu xawidaanihi aw yu aw yu aw yu nasiraanihi aw yu majisaanihi loolu li mu tekki kon mooy fexe ba yar leen éducation bu rafet jëmbat ci ñoom jikko yu baax yu loolu it lu ci am lu am solo loo xam ne munta ñàkk ci yar leen ba tax sunu borom ne yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yéen nit ñi maa ngi leen di digal ngeen may tandiku ngeen wattandiku seen bopp wattandikul seen bopp wattandikul seenu njaboot sawara wattandikul sa bopp sawara mooy jëfe li yàlla digle bàyyi li mu tere wattandikul seen njaboot sawara mooy teg leen ci yoon ba yoonu mbaax jàppandi ci ñoom euh, yooyu mooy waxuudu xan naasu wal xijaara ba aay bi jeex loolu ci wàllu tërbiya ci wàllu gone ci lay ci lay findu bokk na ci it mooy tànnal leen bii asaaliha nit it boo ko bëggee yar bëgg mel ni mu bëgg mel responsable la ci jur bu nekk mu fexe ba ay doomam nekk ci environnement bu baax environnement baax mooy environnement boo xam ne environnement diine la environnement pas-pas bu baax moo fa nekk yooyu yëpp mu tànnal leen ko ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel yooyu yëpp ci responsable ci responsabilité yi nga xam dafa war jur bi ci doom ji ci la ci la bokk ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax kon sàmm gi ak yar gi lu ci am solo la moom it mu bàyyi ko xel bu baax a baax niki noonu it bu dee waajur wu jigéen bi moom it ku ne xam na ne responsabilité bu rëy rëy la ko yàlla sant ci ay doom surtout ci ay doomam moom moom responsabilité boobu sax booy xool ci wàllu gone ci lislaam moo gën a rëy fuuf responsabilité bi mu dénk woy jur wu góor ci gone ndax toujours li mu nekk ak gone gi daa bari li mu nekk ak moom ci waxtu yi ëpp moom mooy nekk ak moom mooy xam ci li mu nekk kon moom war naa fexe ba sàmm li nga xam ne moom mooy avenir gone yi fexe ba li ñuy sàmm seenu seen seen seen wér-gu-yaram sàmm seen lépp ci seenu nekkin ndax li ëpp ci ay waxtu ci moom lañ koy def moom way jur bu jigéen wi moo tax responsabilité bu rëy rëy rëy la am ci la am ci li nga xam ne moom mooy yarub yarub xale yi responsabilité bu rëy rëy xam ne daf koo war a daf ko war a gàddu kon war naa fexe ba waajal leen ndax i'daad al ajyaalul qaadima i'daad ajyaal yooyu nga xam ne ñoo war a ñëw la ca ëpp solo wala boog ki nga xam ne mooy ki ko jiite dëgg-dëgg mën nañoo wax ne mooy wayjur wu jigéen bi moo war a xam ci moo responsable la ci seenu set responsable la ci seenu njàng responsable la ci fi ñuy fooy environnement bi ñuy dund yooyu yëpp mu di ci bàyyi xel di ko gën a di ko su gën a sàmm bu baax a baax a baax ci li mënta ñàkk ci eh, li nga xam ne moom mooy diggante kii bi ci la bokk boo jógee foofu it ci diggante jur ak doom am na beneen responsabilité bu dox ci diggante nit ki ak soxnaam soxna si moom it am na ay responsabilité yu ko war ci ci jigéen ci góor gi góor gi moom it am na ay responsabilité ko war ci jigéen bi responsabilité yooyu mën nañoo xam ne yee ci ëpp solo rek ci góor moom mooy xam nañ ko mooy wàllu dundal geeg dëkkoo beeg yee ci yooyu yëpp ay responsabilité loo xam ne dañ ko koo gàll waajib la ci moom mu taxawee responsabilité yooyu lu mu ci defut wala lu mu ci manqué le bu ëllëgee dina nekk euh, dina ko rendre compte suñu borom ndax ay luñ ko teg ci kawam la loo xam ne mun a ñàkk mu def ko bu dee jigéen gi moom it am na ay responsabilités yu ko war ci góor gi bi njëkk mooy topp ko jigéen dafa war a topp borom këram am na xadis yu baree bari yuy wax ngëneel ak toyaaba yi nga xam ne mooy xaar jigéen gi nga xam ne taxaw na temm ci di def li ko borom këram sant ba noppi di ko defee ci anam gëm gën a rafet kon fexe di ko topp ci moom di def lim bëgg nga di ko def te loolu mu bëgg lépp bañ a nekk ak mooy yàlla bañ a nekk loo xam ne lu suñu borom di tere la góor gi nga topp ko ci loolu di munti nekk bokk na ci mooy sàmmal ko këram sàmmal ko alalam loolu ci warteef ci responsabilité yi nga xam ne dafa war jigéen gi ci jigéen moo war a sàmm kër borom këram moo war a sàmm alalam moo war a sàmm ak njabootam waaye dimbali ko ci mbaax su ko laajee ko ci jaamu yàlla jigéen it bokk na ci responsabilité yi yàlla gàdd mooy nag responsabilité yi nga xam ne moo ko war mooy dimbali góor ci mbaax saa yu nekkee ci jafe-jafe nga dalal ko saa yu nekkee ci ay xat-xat nga fexe ba génn ko ci xat-xat yooyu loo ca man te loolu yonent bi salaam salaam sayyidatuna Xadiija def na ci liggéey bu am solo boo xam ne keroog bi mu gisee la mu gis ca xuntuma ba ñu wax ko ndalal gam ko ca dalal te it nag loolu si wa min ayaatihi an wa la ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha li taskunu ilayha moom la sayyidatuna Xadiija taxawi dëgg dëgg dëgg moo tax nag jigéen bokk na ay responsabilité am mooy dimbali borom këram ci mbaax waaye dimbali ko ci aw yow dimbali ko ci lépp loo xam ne mënu ko te moom mu man ko mu taxaw ca mu taxaw ca loolu ci ay responsabilité yi war diggante nit ki borom euh, jafe ñu gis ni yëpp it ci diggante wayjur ak doom wala ñu di ko gis ci société bi bu ci nekk dafay dellu ci ñàkk respecté bi nga xam ne ak ñàkk yëg responsabilité sàmm sa njaboot yar leen teg leen ci yoon wutal leen mustaqbal bu baax loolu jafe-jafe yu am la yoo xam ne waxtu wu nekk ñu ngi koy dund te loolu mu mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ñu wàccee ci loolu it mooy responsabilité bi war diggante nit ki ak soxnaam wala diggante soxna si ak borom kër gi moo tudd nañ ci ay yëf léegi yoo xam ne ñoom it sàmm loolu ci kenn ku nekk ci ñoom ba mën a wàccoo ak responsabilité boobu mun mënta ñàkk ci wayjur wu góor yi ci ci soxna si mënta ñàkk it ci jigéen gi ñu bàyyi ci xel kenn ku nekk wax nañ la nga xam ne moo ca war ci diggante ak moom yooyu nag nga xam ne mooy sàmm gi mooy yarbeeg yu mel noonu mooy aaya boobu ñu tuddoon yooyu yëpp ci la dugg daanaka ci usra bi mooy responsabilité bi jëm bi ci wàllu famille yar leen ak jàngal leen ak tàggat famille bi ci ay jikko yu baax ak yu mel noonu yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran niki noonu responsabilité boobu ci biti kër gi bu jógee ci famille bi dafa war a gën a mën a yaatu responsabilité yu bari yu la war sa digganteeg sa dëkkandoo bi la yàlla dëkkal dëkkandoo boobu nga xam ne benn muy dëkkandoo boobu nga xam ne mooy dëkkandoo bi la yàlla boole muy mbokk wala muy ab jàmbur wala muy keneen ci yow benn bu ci nekk daa am lu la war ci diggante ak moom kon li la war sa digganteeg sa dëkkandoo mooy sàmm àqi dëkkandoo ak moom nga fexe ba wàccoo ak moom responsabilité boobu it nga mën koo gàttu bu ko defee dëkkandoo bu ci nekk mbokk gi it nit yi mbokk gi it am na ay dëkkandoo yoo xam ne am na ci ay responsabilités yoo xam ne am na ci diggante nit ki ak i bokkam waaw nit ki ak i bokkam ay responsabilité yoo xam nit ki war na ko am ci diggante jàppalante ak euh, dimbalante ak di sottante ay xalaat di seetante yooyu yëpp ay responsabilité yoo xam nit ki war na cee bàyyi xel bu baax a baax ngir dëgëral li nga xam ne moom mooy euh, solidarité waaye dëgëral it li nga xam ne mooy responsabilité bi nga xam ne moo war kenn ku nekk ci ñoom kon responsabilité yooyu ñu doon tudd nga xam ne dafa dafa yaatu tàmbalee ko ci al amaana ni ñu ko waxee léegi mu wàcce ak lislaam gisiin wu mu ci gis ak it masuuliyatu riaaya bi nga xam ne dafa war ci diggante nit ki akuk akuk njabootam lu ci am solo loo xam nit ki war na ko bàyyi xel xam naa du ñu jeexal te responsabilité boobu ñu doon waxtaan it fese luñ ko ci kër gi nga xam ne moom la jataay bi daloo ku ne xam ne ne ñoom it ñu njabootuk Serigne Omar responsabilité bii ñu doon waxtaanee surtout masuuliyatu riaaya am nañ ci taxawaay bu ama am solo boo xam ne am nañ ko ci diggante ak njaboot gi borom ëtt bi nga xam ne ci la ñu nekk bu ëttam muy Serigne Omar ku ne xam ne ne responsabilité boobu yëgoon na ko responsabilité boobu it gàddu woon na ko ci diggante ak njabootam yar na leen sàmm na leen ba noppi it teg na leen ci aw yoon woo xam ne kenn ku ci nekk da nga yëg responsabilité bi la war ndax taxawaay ak defin yu am solo yoo xam ne defe na ko ci diggante mag li nga xam ne mooy ak njabootam waaye diggante mag taalibi yi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole loon kenn ku ci nekk mu teg la ci yoon yar ba war mu yar la ko jàngal boo matee jàng ak it tàggat la ci lépp loo xam ne mooy tax nga am ngërëmul yàlla ak ngërëmul yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon borom barab bi misaal la ci taxawaay bu am solo boo xam ne am na ko ci yar njaboot gi am na ko ci responsabilité bu bu wér a wér boo xam ne mboolem lu ñu fi tudd ci sunu borom di ko wane ci ay responsabilité sëriñ Omar jëmb mi misaal la ci mu yaatoo yaatu misaal la ci misaal la ci yaruk njaboot misaal la ci tàggat ak njaboot ci nangoo liggéey ku ne xam ne ne njaboot la koo xam ne kenn ku nekk mi ngi ci barab di fa yëngu kenn ku nekk mi ngi ci barab di fa yàlla kenn ku nekk mi ngi ci barab di tàggat ay ndaw di leen defar te loolu lépp yar la boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci seen jur bu baax woowu wala seen maam yu baax yooyu seen maam yu baax jooju nga xam ne moom lañ nekk ca ëttam kon moom yëgoon na responsabilité bi ko war moo tax yëg gi mu yëg responsabilité boobu moo tax njaboot gi ñëw ba ci ëttam bii di fi waxtaane lu jëm ci responsabilité te yaakaar naa kilifa yi bokk ci kër gi buñ jëlee kàddu mën nañoo firndeel taxawaayam ak jëmmam ci li nga xam ne ak taxawaayam bu rafet ci wàllu responsabilité bii ñu doon waxtaane loolu nag jàpp naa ne lu ñëpp war a bàyyi xel la rawatina sénération yi nga xam ne ñooy ñëw xam ne mag ñi li leen waroon lépp ci responsabilité seen diggante seen njaboot ci sàmm ko ci defar seen jikko ci jàngal leen ci yar leen ci xamal leen lenn lu ci nekk def nañ ko kenn ku nekk it war a tàmbalee foofu yow it li la yàlla booleel ci njaboot nga sàmm leen yar leen yëg responsabilité boobu buñ aajee taxawu nga taxawu leen buñ dimb leen nga dimbal leen buñ aajee orienté nga orienté leen luñ aaj ci aw tawjihaat leen lu ci nekk nga taxaw ci ci anam nga gën a rafete te gën a mucc jàpp naan lu ci am solo la kon xanaa damay yëkkati damay daaneel foofu sama kàddu ndax euh, mbokk yi war a jëlaat kàddu sama ginnaaw te jataay bi mi ngi guddi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu